tracer par secteur, le secteur de la communication, euh, secteur dans lequel beaucoup de choses ont été, beaucoup de questions ont été posées. Bon, d'abord, de manière générale, sur le cas de la RTS, qu'on va passer rapide, sur, sur lequel on va passer rapidement, c'est une question récurrente. Chaque fois, les personnes qui interviennent disent toujours que la RTS ne remplit pas sa mission. Je pense qu'il est important que les Sénégalais comprennent les missions de la RTS et comprennent que d'abord, contrairement à ce qui a été dit, je me porte à faux, la RTS n'est pas en faillite. La RTS n'est pas en faillite. Il est inexact de dire que la RTS n'est pas faillite. Parce que son budget est passé en à 10 milliards. Aujourd'hui, c'est de 13 milliards à RTS. RTS, aujourd'hui, c'est une société qui se modernise, parce qu'il est important que les, gens, que les personnes sachent, RTS a une mission de service public pour tous les Sénégalais. Et la RTS est, le, est la vitrine de toutes les politiques publiques au Sénégal. Et il est important que la RTS soit préservée. Maintenant que les personnes s'offusquent du débat politique, il ne faut pas confondre la présence des hommes politiques dans, le, dans, le, dans, dans les émissions, pas confondre cet état de fait avec les thèmes politiques qui sont développés au sein de la RTS. Et c'est vrai, le contenu peut toujours être diversifié, toujours être amélioré en fonction des circonstances. Je te fais d'accord. Même le directeur général d'ailleurs, avec qui j'échange très souvent, est bien conscient qu'effectivement, que les débats publics, peuvent effectivement, le contenu peut être, peut davantage à l'opposition, à la pluralité qui caractérise le Sénégal. Mais de la doctrine c'est de vulgariser les politiques publiques de l'État du Sénégal. Il faut que ce soit clairement compris. Et d'ailleurs, le président Macky Sall, le président de a mis beaucoup de moyens, ce qui fait qu'aujourd'hui, RTS, c'est plus, de cinq chaînes, des chaînes de télévision, des chaînes décentralisées. Vous n'avez pas ça avant. Aujourd'hui, vous avez RTS Matam, vous avez RTS Tambacounda, RTS Ziguinchor. Ce sont des avancées notables. RTS, c'est 17 chaînes de radio. la RTS, qui, qui, est présente dans toutes les régions du Sénégal, et trois chaînes de radio à Dakar. Donc, il faut comprendre que l'effectivité territoriale, l'équité territoriale est perceptible dans les médias grâce à la RTS. C'est une réalité. S'agissant tout à l'heure, quelqu'un a parlé des, des, coupures au sein de la TFM. Ça, vous savez que nous sommes dans état de droit. La RTS, les matchs de football, les compétitions ETS achète des droits. Il n'est pas concevable que ETS achète des droits et que des télévisions euh, privées fassent de la copie ou bien fassent du piratage et diffusent. Il est important que quand des cas de figure se présentent, effectivement, que les mesures soient prises pour que la chaîne arrête de diffuser. C'était le cas du match précédent avec la TFM. C'est pour répondre à la question de l'honorable député. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme je réponds justement à l'honorable député Sangou John par rapport au contenu. Donc, il faut pas trop euh, se focaliser sur les contenus politiques au sein de la, de la RTS. Ce n'est pas l'objet de, la, de, cette, de, cette, euh, de cet organe qui, est, qui a pour mission privilégiée de diffuser, d'expliquer, de montrer la, les, les politiques publiques au Sénégal. Les conditions de travail des agents de la RTS. savons tous que au sein de la RTS, le climat social est apaisé. Il y a des efforts dans chaque, chaque société aujourd'hui, privée comme publique. Il y a toujours des difficultés, mais le dialogue aujourd'hui a été instauré comme étant un moyen de, communication, un moyen de régler les problèmes. Et aujourd'hui, nous avons vu effectivement, a, le dialogue n'est pas rompu entre la direction et les syndicats. Le dialogue est permanent et les revendications sont toujours, euh, euh, demandées. Mais effectivement, le dialogue est ouvert et vous n'avez pas entendu une, une, une, une, crise ou bien une grève euh, illimitée euh, au sein de la RTS parce qu'effectivement, il y a un effort qui est fait par le ministère, par la direction justement, pour que nous waxtaan seen biir Abdou Mboy honorable Abdou Mboy maa ngi nuyu maa ngi au passage wax na ko fi sànq waxtaan mooy jëmale réew kanam donc maa ngi invité encore une fois la direction de continuer à discuter continuer à waxtaan ak agent yi parce que ñoom am nañ droit aussi chaque chaque chaque fois ñu évaluer seen condition de travail évaluer seen condition de de de ni ñuy liggéeyee ba ñu ba mu gën a war a mën a augmenter ba mu gën a mën a améliorer wu. donc de ce point de vue là la direction n'est pas du tout fermée le directeur général Racine Talla est là il m'écoute donc il sait effectivement que c'est la doctrine qui est par le président Macky mooy képp kuy gérer structure au Sénégal na waxtaan ak agent yi. pour su la mën a dimbali nga dimbali leen soo mën a régler yenn problème yi nga régler ko loolu mooy vraiment moom mooy Sénégal bu ñu bëgg mooy Sénégal Sénégal pour tous boo xamante ne moom la ñëpp yaakaar bu loolu weesoo si je reviens rapidement sur bon la RTS aujourd'hui on sait qu'aujourd'hui le budget à 13 milliards c'est une avancée importante monsieur le directeur général on sait qu'aujourd'hui la RTS c'est une société moderne avec la tour de la RTS qui est en train d'être construite 34 bientôt sera inauguré d'ailleurs musul am Sénégal tey jii ñëpp xam nañ fu fu fu siège RTS nekkoon avant ak tey jii tour bu am solo bi ñu tabaxal RTS à 34 milliards léegi léegi ñu inauguré ko loolu muy lu am solo si suñu télévision nationale. donc c'est pour dire encore une fois le président Macky Sall a compris que la communication à travers des outils comme RTS des médias comme RTS est très importante pour sénégalais yi mën a xam lan la leen état di liggéeyal. Sénégalais fu ñu mënti nekk ci ci réew mi mu nekk muy Fongolemi muy Tamba muy Ziguinchor muy Matam muy fu mu mënti nekk ñu mën am accès ci information yu li ñuy lii état du Sénégal ak gouvernement ak institution yëpp di liggéeyal justement euh, sénégalais yi donc investissement yi dafa am solo donc RTS aujourd'hui mun naa ne c'est parmi dans l'Afrique de l'Ouest en tout cas c'est le média public le plus euh, comment dirais-je moderne euh, de l'Afrique de l'Ouest et c'est une réalité donc ñu ci félicité bu baax président Macky bu mu jëlee euh, justement euh, initiative yu am solo yooyu euh, bu ñëw xoolee aussi toujours ñu ngi wax toujours dans le domaine de la communication donc c' est inexact de dire que RTS e dafa fayit il est inexact de dire que APS dafa fayit il est inexact de dire que Soleil dafa fayit ku fayit mooy société buy def bénéfice mooy fayit société boo xamante ne subvention la dundee mënoo dafa fayit parce que état bi moo koy subventionné à quatre vingt quinze pour cent quatre vingt dix neuf pour cent donc euh, donc on peut pas dire que sociétés yooyu dañoo fay au contraire yoo xamante seen budget yokku na bu baax en dix ans te ça c'est la ça c'est également c'est la c'est c'est la c'est la réalité donc donc RTS daal maa ngi ñaan sama mbokk euh, yu nekk ci opposition bi nañu nañu gën di xool RTS parce que fi gën a xam fu réew mi toll c'est très important bu fekkee am nañ débat public ñu war def débat politique yooyu moom mun nañ dem ci média yaa ngi fi média yi bëri nañ fi naa si ñëwaat tout à l'heure ci Sénégal et sama les laisse justement à aller sama m'amène au point suivant sur la sur la presse de manière générale Sénégal il est important ñu xam ne que nous avons 491 radios au Sénégal il est important ñu xam aussi Sénégal nous avons plus de 400 sites en ligne te sur les 400 sites en ligne nous venons de faire le point nous n'avons que 54 sites qui sont enregistrés sur les quotidiens au Sénégal chaque jour paraît 54 quotidiens d'information et sur les 54 gis am na quotidien yu juddu fan yi am na quinze yu juddu fan maa ngi leen wax nañu respecter la loi quotidien boo koy créer da nga war a respecter la loi respecter les procédures ñëw déclarer wu parce que c'est le principe de la déclaration parce que Sénégal c'est l'article de la Constitution qui dit que au Sénégal vous pouvez librement vous avez la liberté de la parole liberté de l'écrit mais tout en respectant les lois et règlements et surtout l'ordre public et la vie privée la dignité humaine c'est que aujourd'hui le principe de liberté boobu moo tax ku mu neex boo bu la neexee yow nga créer sa presse sa sa organe de presse sa quotidien mais dafa am une formalité obligatoire boo war a def ah, ñoom xam nañ ko bu baax à savoir au ministère et fait faire une copie au procureur de la République pour ñu xam ne effectivement média bii génn kan moo ko kan moo ko moom kan mooy le directeur de publication pour que la responsabilité soit située aujourd'hui je précise qu'il y a au moins 15 quotidiens yu bees yi y semaine yi fan yi semaine yi yoo xamante ne c'est des quotidiens inconnus dans le dans les médias qui n'ont pas encore encore formalisé ces procédures là donc maa ngi leen di rappeler nañu rapidement ñëw formaliser wu identifier wu très important parce que on voit souvent à la veille des élections présidentielles dañuy gis ne médias yi kii euh, quotidiens yu bëri dañuy paraître mais c'est juste le temps d élection le temps d'un pour manipuler encore opinion bi loo aussi baax na baax na trop sénégalais bàyyi seen xel bu baax a baax médias yi bees nga xam ne du ñu sax publier amuñu sax papier sur le sur le dans dans dans pour le public dañuy am juste rek benn kii euh, benn publication sur euh, euh, PDF di ko jaarale ci réseau yi mais amul amul contenu a même pas de contenu dans le journal pour rek passer benn une wala benn une manipuler loolu aussi bëgg naa baax sénégalais yi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. ci les revues de presse ñuy dégg les unes ñuy dégg yi si gën a bëri tey ji Sénégal dañu gis ne euh, les Sénégalais sont manipulés les Sénégalais sont utilisés par rapport aux unes aux revues de presse ñuy jàll tous les matins loolu aussi baax bëgg naa Sénégalais aussi bàyyi ci xel baax en tant que ministre de la communication baax na ma attirer Sénégalais seen seen euh, seen attention ci ci ci point yooyu bu ñu ñëw loolu nag dafay xaw jaaxal ñu bëri ñu ne presse bi amul xaalis presse dafa nekk dafa nekk en difficulté mais vous avez bés bu nekk ñu gis ay médias yu bees di créé wu Donc il y a une contradiction entre la réalité économique et la réalité euh, physique de ces médias. bés bu nekk médias ñu créé ko pourtant ñëpp xam nañ ne les médias ne son pas rentables les médias on des difficultés économique donc il a un problème quelque part c'est-à-dire que am na lu xew c'est pas rentable mais kenn kenn tëjul ñëpp ubbi di con continuer di di di agir donc ça veut dire quoi noo notre média la communication Sénégal la presse sénégalaise dañ ko a xool lan naka lay lan lay dundee c'est important tey jii amul benn média buy def ay buy def bu bu positif dans ses résultats amul et d'ailleurs loolu mu sax moo justifié que souvent les conditions de travail des agents des jeunes reporters par exemple que je salue au passage vraiment je salue tous les techniciens des médias parce que lépp lu ñu mënti wax ci état lépp lu ñu mënti wax ci politique bi lépp lu mun mënti wax ci Sénégal c'est c'est des vaillants techniciens des vaillants agents des vaillants journalistes yoo xamante ne c'est leur métier c'est leur cœur de métier ñoom ñoo koy génnee ñoo koy tasaare partout ñoom nag parmi eux am na nag ay journalistes yu yu am fulla am fayda bëgg seen liggéey xam fi ñu jëm xam nañu war a liggéey xam seen responsabilité aussi ñooñu il est important que honorable député ñooñu ñu félicité leen bu baax a baax parce que c'est pas facile que dans ce domaine ñuy liggéeyee noonu am na technicien yoo xamante ne am fulla am fayda seen biir di si lu leen métti lu leen naqar yépp ñu nekk ci di liggéeyal pour que lépp lu ñuy lépp ñu war a mën a Sénégalais war a mën a xam ñu xam ko ci biir bi nag ci biir am na toujours toujours lu ñuul ci soow mi mooy que y des journalistes yoo xamante ne sont pas des journalistes wala des journalistes yoo xamante ne ils font exprès de transgresser la loi un journaliste wala ku mu ti au Sénégal nul n'est au-dessus de la loi le code de la presse dafa réglementer bu baax les les ce qu'il faut faire le code la presse dit que le journaliste ne doit pas donner de fausses informations le journaliste doit dire la vérité tant que nag un journaliste a jël responsabilité di wax dëgg di reste dans le cadre des lois et règlements mënoo ci am benn problème mais boo boo teggee yoon def defatoo journalisme di def leneen ak leneen mais loolu ci fekk aussi c'est c'est la c'est qui s'applique sur toi donc c'est important que ñu xam ko et d'ailleurs dans le cadre de l'assainissement du secteur parce que tey jii tuuti na jeune journaliste yi bëgg dund seen profession wala technicien que coono gi dafa bari moo tax ñu pour assainir parce que xamatuñ kii yee kii nous avons mis en place dans le cadre du code de la presse la carte nationale de la presse te je félicite vraiment euh, l'Assemblée nationale le président de l'Assemblée nationale pour qu'effectivement fii pour nit dugg fii di def reportage foog nga am la carte de la presse qui est exigée et c'est la même exigence qui doit être dans tous les services de l'État dans tous les ministères dans tout toutes les structures de l'État en tout cas la carte de la presse à l'entrée Parce que boo qu'aujourd'hui, sur la carte de la presse, nous avons eu 2400 enregistrements de personnes. 2431 personnes demandent nous la carte de la presse. Sur les 2400, 1808 nous avons une carte de la presse. Donc, comprenez aussi que Tibir 1800 il y a une partie des techniciens et une partie de journalistes. les journalistes qui la carte de la presse sont 1254 à date d'aujourd'hui. Les techniciens qui ont carte sont 654 personnes. Il y a des demandes qui ont été rejetées aussi. Il y a à peu près 300 demandes, 250 demandes qui ont été rejetées. Et aujourd'hui, il y a presque 300 demandes qui encore, qui sont en train d'être étudiées. Et d'ailleurs, maintenant, dans le de la presse, les journalistes eux-mêmes, la presse elle-même a compris qu'il est temps de discuter entre tous les acteurs. moo tax ñu def les assises de la presse qui pendant les pour sur les trois prochaines enfin en fin décembre lay kii bi di jeex les travaux yi di jeex toutes les questions relatives à la viabilité de la presse à la à la, question relative aujourd'hui euh, à l'application du code de la presse et questions relatives aujourd'hui Euh, la viabilité économique du secteur de la presse question ñu wax fii yëpp yu yu yu sénégalais yi di posé wu yëpp les assises de la presse ñu ngi koy étudier ah, ils vont rendre leurs travaux en fin décembre en fin en vertu des travaux qui sont rendus dinañ ko justement euh, xool naka lañ koy appliquer au niveau au plus haut sommet de l'État donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la presse il est important aussi que les acteurs eux-mêmes prennent leurs responsabilités notamment le nga xamante ne mooy sanctionner mooy les les journalistes mu def son son travail ca évitera justement que le CNRA ou le ministère di jël ay sanctions contre des organes de presse si soom Sénégal moom boo respecter la loi y aucun problème mais bépp organe de presse boo diffuser loo warul diffuser booy wax sa média loo warul wax day l'État prendra ses responsabilités ba mu mat sëkk loolu moom kenn mënu ko fi dindi parce que le CNRA loolu mooy rôle am c'est un rôle de contrôle de veille de sanction aussi ça c'est important Sur l'aide à la aussi, pour finir, le fonds d'appui, le ministère n'a aucun rôle dessus. Le ministre, le ministre préside, mais c'est un comité qui organise le, le fonds d'appui. Comité, même ci acteurs, même les acteurs Senbop, c'est-à-dire savoir les, les journalistes, euh, les syndicats, les syndicats de journalistes, ñoom ñëpp ñu ngi ci comité bi ñoom ñooy tànn chaque entreprise ñoom ñooy xool ku nekk ñaata lañ la war a jox ci fonds d'appui bi loolu foog mu ko aussi donc na euh, naka lañ koy xoolee dañu def ay critères dañu def en fonction des activités bu ñu ne par exemple euh, est-ce que respecté respecté nga la fay fay ay euh, ses impôts ay obligations administratives boo boobaa ñu noté ko sur 10 jox la benn note est-ce que am ngay agent yooyu fay régulièrement boo ko boo ko amee on on met des critères ce sont des mooy joxe benn note note boobu mooy correspondre à un certain Et pour répondre au député Ibrahim Diop qui parlait de la diaspora, a des sociétés de la diaspora, des entreprises de presse de la diaspora qui ont effectivement bénéficié du fonds de la, du, fonds, du fonds, du fonds d'appui au secteur de la presse. Mon cité, euh, il y a réew Réunion News, il y a Diaspora News, il y a même Sénégo, dont le responsable est installé euh, à, à l'étranger. Ils ont reçu effectivement des fonds. Sénégal nag bon souvent ñi xam ne dañuy jot dañuy jot ay fonds duñ ko wax dañu noppi rek ñu jotu ñëpp jotu ñooy ay recours di wax mais ñi jot moom duñu wax dara D'ailleurs, sur 234 demandes, nous avons eu que 10 recours pour le moment. Pour Kholat, les dossiers, c'était 10 billes recours dont le groupe Walfadjiri, euh, qui, qui recours le bloc, nous sommes en, en train d'étudier ces, ces recours-là. Voilà, donc, pour, euh, pour la présidentielle Bidegno aussi, la presse joue un rôle important et il est important aussi que la également soit dotée comme chaque année, comme chaque, euh, chaque élection présidentielle, la RTS, euh, le Soleil, la PS euh, et tous les organes de presse en fait, de, de, de, le soleil puisse être soutenu euh, dans le cadre de. Nous avons même demandé 800 millions d'ailleurs au niveau de l'APS pour, que, pour, la, pour, les, pour la couverture de l'élection euh, présidentielle. Euh, su ñu ñëwee ci secteur de la de la toujours de la de communication mën naa ci waxaale ci réseaux sociaux yi parce que les réseaux sociaux comme l'a dit honorable député Nicolas Ndiaye je vous salue au passage c'est un nouveau monde on a l'accès à l'information au Sénégal à travers les réseaux sociaux. Mais nous avons vu, comme l'a dit, c'est un, un, un, outil, malheureusement, il y a beaucoup de haine qui est distillée, beaucoup de violence qui est distillée, beaucoup de perversion qui est distillée. Et de, nous sommes tous d'accord que, que nous condamnons tous la violence dans les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut retenir, il est vrai, on peut tous s'alarmer de nos réseaux sociaux. mais il faut prendre des solutions il faut il faut ñu am solution il faut prendre des mesures mënuñ toog di constater rek ñu ngi saaga constater ñu ngi jéem taal dëkk bi constater ñu ngi def ay appel à l'insurrection di constater bés bu nekk ce qui se fait dans le pays ñu ne naan kenn mësu dara parce que les réseaux sociaux fu mu neex ku la neex foo fu mu la neexee ak foo mënti nekk ci àdduna bi def ay vidéo def lu la neex te du te dara du fekk loolu c'est pas c'est dangereux le pays il faut ñu xam ban pour demain donc ñëpp xam nañu le danger il les pays du monde ñu ngi jéem réguler des réseaux sociaux c'est une réalité parce que ne faut pas confondre réguler réguler réguler les réseaux sociaux ak priver les gens de leur liberté non la liberté oui mais la liberté elle a est limitée étudiant première année droit xam nañ ko c'est une liberté oui mais elle est encadrée aujourd'hui ce qu'on remarque c'est que dans les réseaux sociaux les plateformes sont toutes des plateformes étrangères amul benn benn plateforme sénégalaise yëpp étrangère la Google euh, Facebook TikTok yooyu yëpp c'est des plateformes WhatsApp yooyu yëpp moomuñu ko maintenant ce que ce qu'on remarque en cas d'émeute parce qu'on a vu qu'effectivement que les émeutes dafa day gën a amplifié wu aujourd'hui su fekkee TikTok marche su fekkee fekk les réseaux sociaux marchent on a vu que les choses euh, day gën a amplifié wu donc moo tax internet n'est pas coupé au Sénégal on a réduit coupé les données mobiles internet sur le téléphone pour des périodes bien déterminées ça n'a même pas dépassé 4 jours donc faut ñu xam loolu internet est disponible la maison dans les bureaux et autres c'était juste sur les téléphones parce le pays en crise il fallait vraiment prendre les mesures qui les mesures euh, pour ne pas trop abuser du temps parce que le ministre de la des finances doit passer maintenant sur la poste la poste ce budget budget 2024 il est prévu euh, subvention de l'État qui était de 6 milliards cette année qui était même de 3 milliards l'année dernière 2022 6 milliards 2023 et 12 milliards sur 2024. Ce qu'il faut savoir que depuis plus, plus d'une dizaine d'années, chaque année, à partir du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, la Poste ne paye plus les salaires. C'est l'État du Sénégal qui paye les salaires. tous les mois. 1 milliard 400 millions. Tous les mois. Tous les derniers mois de l'année, ça se passe comme ça. Donc, taxaw fi naan way euh, RTS taxaw fi naan euh, euh, salaire yi amul seen salaire ñoom waa Poste xam nañ bu baax la situation l'État les pour loolu donc ce qui fait qu'aujourd'hui les les salaires dont on parle dinañ ko jot ci ci ay fan yu parce que tout a été signé viré nañ ko ñu ngi préparé pour pour prochain mois bi incha voilà 1 milliard 400 voilà. donc voilà pour euh, je laisserai au ministre des finances de revenir un peu sur la sur la poste sur les sur les malheureusement, le temps ne permet pas de revenir un peu sur le numérique, mais c'est pour dire juste en deux, minutes, en une minute, monsieur le ministre pour wax rek. monsieur le wax rek waaw. monsieur le ministre. waaw ouais, donc léegi pour pour finir simplement pour dire que le Sénégal le numérique est l'avenir du pays bëgg naa député yi autorités yëpp ñu kon nañ kon ñu jël conscience sur ça faire du numérique notre notre prochain combat aujourd'hui au niveau développement du pays ça nous permet de gagner cinq siècles de retard à travers les les les, les infrastructures numériques yi aussi ñu au Sénégal.